jërëjëf euh, président Guirassi mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tour euh, ak seen sant président Guirassi ànd ak euh, mbooleem membre conférence des leaders bu coalition Diomaye président dafa am ay tomb yuñ ma dénk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 je vous remercie jërë ngeen jëf jërëjëf imam Dramé sëñ Cheikh Thioro ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu mboolem waa Touba waa Mbacké euh, mais 1968 Sénégal yëngu woon na loolu 1968 yëngu-yëngu boo xam ne.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 am na fuddee na solo ñu ne tekk marche boobu mu ngi am mardi treize février bu trois heures jotee daanaka gannaaw julli tisbaar ba timis mu ngi jóge rond point Jet jëm école normale supérieur ñun coalition Diomaye président kenn duñu fa jiitu organiser wuñ ko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 muy wéyal suñu campagne muy wax askan wi mobiliser leen ndaxte élection day am jërë ngeen jëf